alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom julli sëlmal ci yonantam bu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax mbokki fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi boolem mbokk teew ci turu sëñ Maxtaar mi nga xam ne nii moom la yàlla nattoo mu nekk ci kanamu daara ji ak njaboot gi xam na nii yëpp ñoo nekk ci liggéey bi moo xam mbootaay gi la yore kàddu daara ji ci biir ak ci bitti moo xam ñuy jàngale la moo xam suñu mbokk yi def ko yu baax yi la commerçant yi la yu mel ne sëriñ buub yu mel ne asnaw ak yu euh, monsieur président de la république ci taxawaayam ci taxawaayam ak yëg-yëg bi nga xam ne nii maanaa ci yëg bi nga xam ne nii am na ko ci daara ji ndax yu bari dana ko séq ak daara ji te ma sàmba du ko xam ma demba du ko xam li ci mujj rek mooy ne bi nga xam ne ni mbas mi dugg na ba ak jaaxle am yónnee aide de camp may sa Sele Ndiaye ndimbal lu am solo mu indi ko ci daara ji waaye ña ngi koy beral nuyoo ak cant ak ngërëm di sant tamit soxnaam ndax soxna Maram Fay Sall ndax day jàppale daara yi ci wàllu dund ci anam gu nekk te bëggul ko ko wax barki démb rek maternité bi nga xam ne ni moo nekk ci euh, moo nekk ci postu daara ji dañoo yónnee ab échographe boo xam ne bii maanaam yi gën a mater yi yi mujj a wàcc ci yi mujj a am la te loolu lépp dañ ko koo wax rek mu jóg def ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon yal na yàlla may leen jàmm may na ko may ko bépp jullit ñu ngi nuyu tamit sunu jigéen di jarbaat ci nun ah, ah, soxna Sali ñu ngi koy nuyu xam na moom li mu bokk ak nun ca ñoom rek xam nañ ni li ñu bokk ak moom ca ñoom ci wàllu ndey ak ci wàllu baay ak ci kokki ak lépp kon am nañ kontante ak mbégte lool ci président tànn gim ko tànn yebal ko ci daara ji kon président tànn bi mu tànn soxna si mooy da ko tànn da koo tànn mu jëm ci këram kon yal na nu ko yàlla fayal kon soxna si ñu ngi lay nuyu ak délégation bi nga àndal yëpp góor ak jigéen ak mag ndaw chef de service yëpp du nuyu tamit monsieur le gouverneur di rafetlu taxawaayam moom it du nuyu monsieur le préfet euh, madame le préfet euh, euh, gouverneur ñu di la seedeel ci préfet ci taxawaayam mook su préfet bi kokki ak chef de service yi nekk Louga yëpp moo xam gendarmerie la moo xam service d'hygiène la moo xam Senelec la moo xam sonaatel moo xam moo xam sapeur pompier ñoom ñëpp hydraulique la taxawaay bu rëy bi ñu taxaw ci ndaje mi ak monsieur Mbéri Sylla euh, conseil départemental taxawaay bi nga xam taxawaay taxaw nañ ko ci ndaje mi soxna si suñ sañoon loolu danañu ko jottalil président wax ko ne ndaw mi nekk fii dey ay ndaw yu mat ndaw lañ lépp loo xam ne war nañ koo taxaw taxaw nañ ko kon dañ leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di wax ne ndaje mi kenn ku nekk war naa xam li ko waral ndax loolu day lu am solo loolu day lu am solo ndax sëñ Ama Saxiir day 1939 la maam Cheikh Mbay ci bisub gàmmu naka yow day tey la gàmmu waaye bàyyil li ngay def lépp te ñëw nga dem kokki mayu ko mu fekk gàmm gi te mu bëggoon koo fekk lool loolu 1939 la ne ko may naa la lu nekk ba mu des nga dëkk Louga ak ñoom rek ñaari dëkk yi nga xam ne ci nga fekk baax demal kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla bi mu ñëwee kokki nag nitu yàlla li muy tànn moo ko xam ndekete kokki mooy dëkk bi nga xam ne nii moo attan daara ji moo mën a uuf daara ji moo am yërmande ci daara ji moo am ndimbal ci daara ji suñ mbokki njóobeen yi yal na leen yàlla fayal ci jiital sëñ xabaan mi nga xam ne nii moom la yàlla teg tey ci kanamu njaboot gi ñu koy ñaanal gudd fan ak njaboot gu nekk ci gannaam yépp amul lumtul taxawee ci daara ji mbas mi togg nañ andi saaf nañ ay café andi ñaan na def na lépp moom ak njaboot gi kon yal leen yàlla fayal ak waa kokki gépp nag ndax kokki nun ak ñoom liñ leen di xoole yonent bi sallallahu alayhi wa ak jullit ñu jëkk bañ gàddaayee jóge Màkka dem Madina ne leen waa Madina uufe woon noonu la ñu waa kokki uufe ne waa Madina dimbalee woon noonu la ñu waa kokki dimbalee na ne leen waa Madina jàppale woon noonu lañu ñu waa kokki jàppale kon dañ leen di ñaan ñoomak ak ñoom ëllëg fa yonent bi dem ak ansaar ya waa Madina ya ca àjjana yal nañ bokk place ba sëñ sëñ ma saxiir bi mu ñëwee 1939 kokki bi mu ñëwee 1939 ay weer la am rek euh, deuxième guerre mondiale déclenché wu 39 45 mu àndoon ak benn jarbaatam kuñ naan Baraama Géy ab jigéenam jur ko yàggul dara rek mu faatu nattu dikk ñu demaat tuuti njabootu maam Cheikh Mbay nekk muy Sëriñ Sam Mbay allah jiili ak seeneen sunu yeneen i mag allah ji Ahmad Loo Njéeme Mor Taala Loo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daara gi tàmbali di am aw nit ci xale yu ndaw ñu génn rek benn nawet ci benn kàmb fii rek doon sëmb rek ci taw bi rek yàlla moom ci ab lim yëmul ci loolu daara ji lakk na lakkati lakkati lakkati waaye malgré natt yooyu am yooyu yëpp mësta tax mu dindi ci ak ngëmam wala mu yox yoxi lu doy na déytu be bis bu natt gën a dikk bis bu jafeñ-jafeñ gën a am keroog la sëñ ma gën a taxaw keroog la gën a takku keroog la gën a bëgg li def dara ci àddina mosu koo yëngal dara ci àddina yi mosu koo yëpp daan wax ne rëyuma kenn xooluma kenn xooluma ci lu am ak lu def sama yoon nekku ci ama saxir daal lu ma am jël lu ma ñàkk muñ yemul ca mu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci liggéey boobu jox ko léppam yemul ca mu ne man day su fekkoon ne am naa alal ju ko mate soo ma joxee sa doom yow baay bi dama lay fay yow yaay ji dama lay fay xale bi dama koy fay jàngal ko ba mu xam diineem am man alquran mu dem ma dem yàlla bu ñu seen seet ba kër yóbbu la xëy am ñu ne ko lu tax sëñ bi lii loo jiblu mu ne man bëggumaa nekk sëriñ boo xam ne bii damay jëriñoo taalibe bi damaa bëgg a nekk sëriñ boo xam ne bii day jëriñ taalibe bi te loolu kenn ku nekk ci ñi toog xam nañ ñu ñëpp suñ bàyyi amuñu woon ñaari dërëm nuñu woon dara defaluñ sëñ ma saxiir dara te nun ñi ñëpp ñëpp ci baas bi sëñ ma saxiir leen jàngal yar leen teg leen ci yoon tekki leen bañ tekki kenn ku nekk nga tem di amal sa njariñ yéen a ngi nii loolu mooy li am waaw waaw ma ngi nii ba kenn ku nekk tey réew mi di la puukare woo moo xam ñuy liggéey ci wàllu commerce la moo xam ci wàllu jàng la moo xam ci wàllu diplomatie la moo xam ci wàllu moo xam moo xam moo xam ci wàllu yépp kon nag te ak loolu lépp ak loolu lépp at mu nekk mu wax ko te du ma dañ di ko wax bi yàlla dikkee akum nattoom ci 30 mars 88 fekk feebar daaneel ko ñu ne nañ ko yóbbu hôpital ñu tukki ci néegam wër wër wër ngir mbalaan muñ ko sànq mun taaw benn sir wala dara luñ ko mën a sànge rek mënuñ ko am man mii di wax sama mbaaj lañ ko sànge te mbaaj ñi ma dañ ko koo jox mu joxaat ma ko kon kooku kon liggéeyal na lislaam lim war a def def na ko lam war a def def na ko yal na ko yàlla fayal te dana ko fay li fi des nag mooy nun ban taxawaay lañ war a am yan jéego lañ war a dox fan lañ war a dox jëm xanaa fi nga xam ne nii file woon na makk jëm jaddul jëngul joy joywul deful lenn xanaa na makk rek jëbal foofa nun luñ def lu dul loolu war a def te loolu nag dama ciy soññ sama bopp di soññ ñëpp di ci soññ ñëpp ndax sëñ ma saxit la am lu mu daan wax danaan wax ne daara xiif du ko tas mar du ko tas rafle du ko tas tumuranke du ko tas ñàkk jàng rekk mooy li mën tas daara yal nañ ci yàlla musal kon war góor góorgóorlu war a taxaw te lii may wax waxulu ma ko waa kokki waaye sëriñ ci daara yëpp laa koy waxal maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ndax ñooy suñuy mbokk ci am fulla am fit am fayda waaye tamit dox yoon wi nga xam ne nii mooy bi yàlla gërëm mooy jàngal xale bi yar ko teg ko ci yoon jubbanti ko fexeel ko ba mu am njariñ fexeel ba taxaw fexeel ba mu am réewam am réewam njariñ fexeel am ay mbokkam njariñ fex amel àdduna sépp njariñ loolu lañ koy def te loolu thème bi ñuy wax ci affaire yàq-yàqu jamono xool leen bi mbas mi amee ñu ne xale yi na ngeen toog te muñ te jàpp ci yàlla ñu xayma li ñuy dépensé li ñu war a def ci ñoom ye suma juumul ñaar fukki fan lañ lañ lañ lañ lañ jëloon ñaar fukki fan benn muy 42 millions suñ mbokk mu baax mi Abdou Aziz Sy la di doomi daara ji di doomi daara ne xayma leen ko bi ñu ko xaymee ñu ne 42 millions la mu ne man danaa def 21 million yi man danaa ko def fi ñuy réunion ne Abdou Aziz kat nee na def na 21 millions yi fi ñu ak àggale mu téléphoné ne faf naa jël lépp muy 42 millions waaw loolu waaw lii kan lañ gis mu di ko def ku dul doomi dara ah waxuma amut de waaye fàllu de gisul kon te teewul mu ànd ak ñun ànd ba fi ñuy wax ak yéen yemuñ loola sëriñ boobu dikk ak maninam aas na bee dikk ak maninam Abdoulaye Dia dikk ak maninam Moustapha Ndiaye dikk ak maninam Cheikh Lo Diop dikk ak euh, Amar dikk ak maninam ak am suñ doom joo xam ne jii moom moom dafa jàpp te mooy li ki ci ñëpp ñu naan ko daamloo buy suñ doom suñu lépp dafa jàpp ne moom su fekkoon ne jëmm jun war a rey daara ji daa soxla woon bakkan war a rey moom day tëdd na nañ ma rey naa dëkk de nañ ma jëkk a rendi man doo ko rendi keneen moom ak njabootu suñu sëñ Mor suñu mag yëpp kon nag li ñuy wax naan ci wàllu jamono jeeg ak nàngam mooy na xale yi nañ leen jàngal te yar leen ni leen jàngal diine te yar leen nañ leen jàngal diine te yar leen te bàyyi leen nañ leen jàngal diine te yar leen te bàyyi leen ñu dem lu baax rek la ñuy def lu baax rek la ñuy indi kon ñooñu nga xam ne nii ak ñeneen ñu dul ñoom ñu ngi taxaw ci daare ji sëñ bi dey ak cantam ndax dana woon waxi tey ji lépp na nekk cant ak ngërëm ñooñu ak sant seenu cant ak ngërëm am na ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii tudduñu leen am na fu mu waaye amul fu mu yem kon nañ xam ne am na tamit sëñ Mat Saxiir bi mu nekkee ci loolu ci daara ji ba 1969 71 72 am ay waajur yu baax yoo xam ne nii jamono moo xam fàllu day dund moo xam dundul moo xam sëñ Maxtaar day dund moo xam dundul waaye bépp ndaje buñ fi def fii ci Koki te tuddunu te tudd ku leen tuddul donte ci kaw suuf lañ nekkit baaluñ la ko baaluñ la ko ko muy alaaji ma xarigéey suñ baay yooyu ba joxe alal jafe ba alal jafe ñu joxe seen alal joxe seen bakkan joxe seen ruu joxe seen lépp muy suñ bàyyi alaaji ma xarigéey alaaji at xule alaaji ma tawassur alaaji ñaas amar alaaji mudu saabi alaaji mu jaxati ca ndànd alaaji Cheikh Diop cilmaxa alaaji moo di géy ca Kaolack alaaji Baara Mbub alaaji sëñ Dame Seck sëñ Morlo ca Caaray ak soxna Fatou Fall ak Moustapha sëñ Moustapha Dieye ca Caameen ak ñeneen ak ñeneen ak ay baay baay alaaji Dieye ca Louga alaaji ma sëñ ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bépp sëñ bi walla fàllu yàggam yàggam dem ci suuf waaye ndaje muñ def suñ gannaaw te luñ te can ak ngërëm ak seenu njaboot koo ko def baaluñ la ko koo def baaluñ la ko ndax ba def jafee ñoom ñoo def ba taxaw jafee ñoom ñoo taxaw te amu ci kenn koo xam ne kii ku jujul Alaaji Modou Gueye mënuñ laa wax lan nga bokk ak sëñ na Saxir kon ñooñu yal na leen yàlla fayal waaye nag dog bi mu amee léegi seeni doom ak ñeneen muy ñi ma doon lib léegi muy alaaj abdal silla moom xanaa alaaj ma silla silla ko jur ak sëriñ bu moom alaaj mba baaram bu ba ko jur ak moodu xuleet mbay xuleet nga xam ni ñoom ñëpp alaaj ak njabootu ala ñoom ñëpp seen njaboot a taxaw ndok bi ngeen waaye nag na ngeen xam ne seen bàyyi bay lu leen ci àddina ndono lu gën a foor ngeen jàpp ci daara yi te it waxuñu leen daara Kokki rek waaye jàpp leen ci daara yëpp li ci des nag mooy ñu ngi del di sant ñëpp ñu jóge Njaago ñu jóge Saalum ñu jóge Bawal ñu jóge Kajoor ñu jóge Barñe nga xam ne ñoom sëñ ma saxir la woon bàyyi Tamsir Juuf la ak sëñ ma saxir ba muy métti ak njabootu Barñe yi ak su waxee Barñe tudd nañ Kafeer tudd nañ fépp ñu jóge Casamance ñu jóge Mali ñu jóge Burkina ñu jóge Guinée Guinée Conakry ñu jóge fépp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp waaye tamit sëñ bi ne woon na nañ beral ñaan suñu mag yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokkoon seq liggéey bi te ka jiitu woon du suñu sëriñ bay alaaji bay sëñ Sam Mbay ak alaaji Yili Mbay ak saat Ahmed Lo Ndiémé ak moo tax ak jabootu mbaarik Anta Ba ci ak ñeneen ñu mel na ak di fi bàyyi ko barki démb suñu mag Moussa Rama ak Mor Yacine ak ñeneen ñu ñoom nañ leen beral ñaan ak nuyoo ak sant nañ leen beral ñaan ñaan leen seen borom njëggal ak yërmande kon ñu ngi delluwaat di sant ñëpp mboolem kilifa yi ci réew mi yëpp yëpp yëpp nag ñëpp waaye nag di beral nuyoo nag sëñ Abo Mbakke xalifa sëñ Fàllu li tax suñu doom jee buur muy galas daaw da ko ba mu ñëw mu yëkkati ñaari million jox ko ne ko man daara ja maa a yor fu daara nekkit maa ko war a yor te demuñu ci dikkuñu ren tamit mu baamtuwaat ko defaat ko ne ko it te damay dikk ca daara ja yi nag te man maa ko war a yor kooku nag fokk danañ ko beroon du nuyu tamit mboolem association islamique yëpp jamaatu ibaad rahman mbootaayu daara ak ñëpp seen taxawaay rafet na yëg na ñëpp gis na ñëpp di beral nuyoo ak cant nag sëñ daara yëpp te suñ tuddee Mouhamadul Amin baare Ñang mi nga xam ne ni moo nekk ca bun yaakaar naa daara yëpp dugg nañ di ko sant di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm mbooloo mi di ñaan yàlla ñaanal leen nu ci yàlla liggéey bi yàlla na gën a jëm ca kanam ñaanal leen nu yàlla liggéey bi yàlla bu ko dara fanq ñaanal leen nu yàlla dara dara ci àddina bu mu tax ba ñu bay lépp loo xam suñ ko amee su fekkee ne alal la wala doom la wala wala ak pal la wala lu mu mën a doon ci koom-koomu àddina dana tax fa fa sëñ ma saxiir tegoon tànkam sëñ maxtaar wala nun danañ fa teg suñ tànk loola yal nañu ko yàlla xañ yàlla buñ ko yal nañu ko yàlla xañ yàlla buñ ko am di di wax nun ñëpp kii mooy suñu royukaay lim defal sëñ ma saxiir kenn ci mu defal ko lim ko liggéeyal kenn ci liggéeyal lim ko topp woon kenn ci nun toppiwu ko kenn ci nun toppiwu ko ma leen a waatal ci yàlla ne mooy ne ba bi sëñ ma sax yi jógee ba léegi mos ta taxaw xot ci am dul mbu mum sol dañ ko koo jox ku mel ne aas na amee wala keneen am na suñu doom ci baax mu ngi ci jotaay muy soxna Yaasin Lo suñu dooma ndax baayam ci ñu ji la da koo wutale am mbubb moo xam mi jar na ñaar fukki junni mu ne ma fàll mbu mii de yaac na ma ko jox waaye day ak a neexoon mu defoon ko ab junni ma def ko ci daara ji moom ma gënaloon mbu bi ak a neexoon ma def def ko ab junni te mbu moom naa jar ñaar fukki junni kon nag wàcc na nun ñëpp moo nuy mujj tëdd moo nuy jëkk jóg tey nit du gore ba agsi ci moom waat naa ko ci yàlla ne soo jëloon ak ràbb di ko ko jam ci gannaay bi ba ba muy jàll ca dënnam du ne oh ñun ñëpp nag muy doom muy rak muy xarit muy am di jàmm muy ñun ñëpp ñoo ko amee làq waaye moom amee lu kenn làq seydallah yàlla seedal kon nag ñu ngi dellu sant ñëpp di sant spécial nag waa presse bi seenu cant guñ leen ameel ak sécurité mooy waa gendarmerie ñi nga ne nii booba léegi ñu ngi ànd ak ñun ci lépp ñu leen di sant di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax nag ba déwén ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nañ ñaan tamit jox nañ jox nañ jox sëñ Khalifa Seck comme naka magam daan defee mu ma dikkee ñoom ñaan toog leen ñu def ñaan al umuri bi xawaatimi